Valdiodio Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Valdiodio Ndiaye nga bokk ci membre des organisations de la société civile laaj bu njëkk bu ma lay laaj moom mooy euh, lan nga xalaat ci euh, troisième candidature bu Macky Sall bi ñuy laam-laamee euh, boobaak léegi loo si xalaat. waaw ci gàttal comme ni mu la ko waxee ci nasaraan affaire candidat troisième candidature président Sall pour man du du buñ ko teg ci mbirum. droit ni l'aspect juridique parce que à l'époque ñun alerté woon nañ des euh, ci mauvaise interprétation ou multiple interprétation yi mun a jur parce que dañu adressé woon si analyse si mbiru euh, jurisprudence euh, maître Ablaye Wade moo tax ñu naan ci gàttal ci leeral lii gën mooy nañu mettre en avant les problèmes d'éthique et de du respect de la parole donnée président Macky Sall wax na ko devant même des chefs d'État étrangers wax na ko devant le président Erdogan wax na ko devant le président l'ancien président de de Burkina Faso euh, Roch-Marc Kaboré ne bii mooy dernier mandat donc foofu lañ koy xaar pour respecter la parole donnée maintenant dégg naa temps yëpp ñu bëri di intervenir surtout ñi bokk ci kanam di wax waxu waxu troisième candidature mm-hmm. ne ñoom amuñu plan B amuñu plan C mais risque bi mooy risque bi mu mën a jural dëkk bi moo tax nañu jiital Sénégal moo gën a am solo di jiital ay intérêt parce que gis nga àdduna euh, loo gis dafay jeex loo gis see nettali lay mujjee ñu rafetal rek moo gën ba pare respecter suñu parole te président Macky Sall man maa ngi koy séntu feneen c'est-à-dire il a il y a une vie après la vie de chef d'État président Macky Sall aujourd'hui il peut se retrouver président de la commission de l'Union africaine il peut se retrouver demain secrétaire général des Nations Unies foofu envergure Sénégal mooy gën a am solo sax que ñu nekk ci détails yi loolu daal la am. Euh, pour yow lan moo war a tax ñu xeex euh, troisième candidature Macky Sall. pour man pour respecter kaddu benn pour conformer wu moom président Macky Sall li mu sollicité woon le peuple ne moom dafay fermer mandat yi ba nga xam ne nit président bu ñëwati ñaari mandat la rek lay def moom président Macky Sall moo ko waxoon loolu bi ko defee. ça a suscité l'adhésion populaire sénégalais yëpp ànd ci donc sa émane d'une volonté populaire sénégalais yi ñoo ne donc ñoom ku fi nekk ci président ñaari mandat doy na sëkk mm. donc loolu moo tax pour man mu nara a yemale mandat am 2024 mais mais est-ce que juridiquement tamit amu ci amu ci euh, yoon constitutionnellement mais juridiquement dafa prox ndool loolu laa doon wax juridiquement dafa am ay prox ndool mm. moo tax tey pour man li ñu nar jiital ci réflexion bi ci analyse yi mooy le respect la parole waaye si seen côté yéen waa société civile bi euh, lan ngeen fas yéene def pour xeex euh, troisième candidature parce que xeexoon ngeen euh, bu Maître Abdoulaye Wade tey ji waaw dinañ dinañ ko ko rappeler <laughs> mhm. dinañ ko rappeler les principes mhm. dinañ ko wax li war mais aussi fondamentalement fondamentalement loolu peuple sénégalais moo koy tranché parce que bu boobaa. Mhm. on va aller vers xool mbax sénégalais li ñu voté woon pour ñuy limiter mandat yi dañ koy conforter. Mhm. waaw et président Macky Sall li ñu xaar si moom mooy mu par la grande porte pas par la petite par la fenêtre la grande porte mooy euh, wax naa ko sànq il a encore son destin pour l'Afrique et peut-être beneen ponk bu occupé actualité bi am solo. di hmm. bi nga xam ni Cour des comptes ñoom ñoo ko génne bi ñu ko génnee nag dañoo épinglé gestion wu fonds force Covid 19 maanaam koppar yi ñu génne woon pour xeexee hmm. ko Covid lu si ëpp dañ ko daal di détourné. Euh, Cour des hmm. comptes moo ko wax yow loo si xalaat. dafa ñaaw dafa salté dafa euh, jéggi dayoo cest à man si sama xalaat bu gën a doy waar sa xalaatu moo ne am na ay compatriotes yu am fit bu ba foofu comprendre li ma oui en fait noonu laa koy sentir c'est un scandale et c'est choquant pour le Sénégal parce que en fait au moment bi ay milliers et des milliers de Sénégalais ñu leen jox ay soins yu adéquats ñu ngi dee ci hôpitaux yi au moment où on a perdu des valeureux citoyens sénégalais mun naa ci citer pêle-mêle pêle-mêle quelqu'un comme Babacar Touré quelqu'un comme euh, nu mu tuddati euh, Alioune Badara Cissé ñooñu ñëpp dem ñu perdre ñooñu ñëpp alors que tey ñooñu soxla réew mi soxla na leen encore au même moment une poignée de sénégalais ña nga tëju fenn. di mhm. roppat xaalis boo xam ne sénégalais yi seen ñaq la ñu boole ak partenaire au développement yi lu ñu dimbalee Sénégal état Sénégal lu mu teg parce que ñaari yoon ci ni ñaq la ñu boole mooy dix neuf milliards yii sénégalais yi cotisé directement ak cent milliards yi état bi joxe mooy si ni contribu si yooyu joxe. boo ko xaymaa sax cent dix neuf milliards si li ñax teg nañ ko ci gafa nguur gi pour mu gérer mbir mi donc tous ces aspects la ñu teg ko fële di wut nu ñuy enrichir xanaa ñu ruus ñu si sax mhm. moo tax ma ne tey lu mu ñuy jaral rek il faut que ñu yegg ba leeral mbir bi ba mu leer moo tax man acte bi président posé dalul noonu sama xel Mm-hmm. li mu wax li mu wax dalul sa xel daal chargé Amadou Ba voilà ñu càmbar jox ko Amadou Ba mm-hmm. pour man na ko jël jox ko ministre de la justice kooku jébbal ko magistrat yi magistrat en mm-hmm. fait man foofu laa koy xaare président euh, kon daal yow amoo amoo yaakaar ci sortie bi nga xam ni président def na ko par rapport wax ma ne awma yaakaar mais dama ne dalagul sama xel dalagul sa xel waaw parce que lu gënoon gaaw lu gënoon diligence bi ñu soxla mooy mu dem directement ci ministre de la justice kooku jàllale mhm. dossier yi mhm. jox ko magistrat ñu liggéey ci mhm. loolu moo dal Sénégal d'accord euh, mais waaw parce que gis nañu ci ay jamono Sénégal saa saa yi ñu fi tege ay comité affaire y day nax et c'est ça loolu moo tax moi je suis personnellement te tamit ah. euh, yow rapport bi euh, Cour des comptes def am nga yaakaar ne amul leen luñ siy laam-laame que lépp lu ñu wax dëgg la. amul dara ci ciy laam-laame parce que magistrat Cour des comptes. Mm-hmm. dégg naa benn ministre de la République génn démb di wax naan ay ils sont partisans et cetera loolu c'est ce discours-là est extrêmement dangereux parce que ça sape les fondements même de la République des magistrats assermentés formés ñu déployer kon xanaa léegi ëllëg ñooñu liggéey bu ñu def ku ñu incriminer mën nga wax ne ils sont partisans wala dañ leen téléguidé loolu mooy danger bi moo tax ma ne la il faut loolu genre un ministre de la république du wax loolu bu xamul na dem jàngi informé wu xam ñooñu ñuy liggéey ak lan mooy seen mode opératoire Euh, pas ay sortie partisane ay mbiru politique yooyu nañ ko régler politique mais dafa am dans une république des institutions intouchables muy armée muy justice yooyu kenn du ko foyee ba di ci dugal yenn et lu ci dramatique il est coutumier des faits defoon na fi ay sorti à l'époque avec OFNAC attaqué na fi CEDEAO man je travaille à l'international mais attends ça avait choqué tout le monde à Abuja et cetera am na yoo xam ne boo koy def da ngay discréditer même l'état bi nga bokk moo tax lu baax la ci moom mu jàngi xam mbir yi nu muy fonctionner balaa muy wax parce que magistrat yooyu mm-hmm. en plus d'être magistrat formé dañ leen tàngaat renforcer seen capacité sur les procédures rapport bi boo ko liiree mm-hmm. c'est extrêmement limpide amul dara luñ ci laam-laame voilà amul dara luñ ciy laam-laame laaj bu mujj Valdiodio Ndiaye euh, di fan yi gis nga arrestation yi bari na muy ñu mhm. nekkee ci ku jég politique bi bari na bari goo xam ne sax ñenn ñi jàpp nañu dafa jéggi dayoo euh, ak mhm. tamit mm -hmm. suñu naatangoo bi di Pape Alé nga xam ne euh, mi ngi actuellement ci kaso bi yow nag ban jàngal nga si am ci réew mu ñuy wax liberté d'expression démocratie ouais. ainsi de suite man euh, jàngat bi ci am mooy état moo nar protéger la liberté d'expression moo nara a protéger la liberté politique moo nar a protéger la question d'opinion Fadilou Keita tey jël dañ ko jëf dugal ko ci kaso bi lii mu wax mënoon nañ ko régler d'une autre manière moo tax mbir yooyu graaw nga jël Pape Alé def ci kaso bi c'est vrai am na yenn point yu mu avancé je demande la prochaine fois que mu gën a constructif mu def preuve de plus de responsabilité mmh. mais dafa jarul tëj nit un simple démenti dans une démocratie qui se respecte suffit maintenant am na yoo xam ne euh, nañu bàyyi di attiser la tension pour lu ko jarul waaw daa jàngat boobu nga ci am moom laa ci am. voilà Valdiodio Ndiaye Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal bu baax a maa ngi leen di gërëm di leen voilà may fàttali ni bokk nga ci euh, organisation de la société civile. jërëjëf merci.